ni ngeen ko gisee depuis ay weer lu toll ci cinq cent yuy liggéey ci kër gu tudd Senelec ñu ngi nekk di xeex seen àq ak seen yeleef depuis ay ati at nguuru Macky Sall tànqam du leen ñi ngi ànd ak ñoom ci xeex bi boobu ba léegi su ngeen xoolee di ngeen gis waa FRAPP di gis waa Yanamar waaye xeex la boo xam ne ñoom ñoo ko sumbal seen bopp di ko xeex ñu ñëw ànd ci ak ñoom def nañ ko Ziguinchor def ko fii Dakar def ko Kaolack def ko feneen ak feneen di wax rek ne xeex bi li ko wund mooy ne yow mii toog sa kër di saraan sa télé mu tàng nga taal sa kilim yow mi nekk menuisier métallique yow mii di jaay crème glace yow mi di liggéey ci beneen secteur économique soo amee tey courant ba mën a def sa activité économique mën a dundal sa njaboot ñii ñoo ko waral waaye ñoom amuñu dërëm bu ñu yóbbu seen kër yow yaa ngi ci sa donkaasi gi di liggéey ndax am nga courant ña la koy jox ñoom ñi ngi nii di dee xiif seen njaboot sonn nguur gi toroxal leen ñàkkal leen fayda ñoom ñooy dee ci poto yi ñoom ñooy dee ci poto poto yi amuñu risque amuñu benn prime bu ñu leen di fay seeni sere dañ ciy dàqe mënuñu am dara lu tolloog ak ak yelleef bu leen nguuru Sénégal di assuré ñu ne déet na waay ki nga xam ne mooy directeur u Sénélec suba ak ngoon guddeeg bëccëg mu leen di jaaba njaleloo ba pare jaar ci suuf di recruter ña neex ñamu soob ñamu bëgg ñi nga xam ne ay partisans am leen bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo xam liggéey bi depuis ay at di ko liggéey am na ñu fi liggéey vingt ans am na ñu si liggéey quinze ans am na ñoo ki ci gën a néew le ans def na ko ci kër googee waaw loolu lan lay nuru te Macky Sall dem na fii conférence bu Abdou Diouf def fi ay discours naa leen jox liggéey balaa ngaa jox liggéey ñi amagul formation joxal liggéey ñii mën seen liggéey te ñu ngi nii joxoo leen liggéey looloo gën a logique Sénégal bu ngeen seetaanee ñii tax tey nga mën a nekk ci sa donkaasi gi liggéey sa liggéey si jàmm ñu bàyyi leen fii ñu toog dee xiif ñun ñëpp waa Sénégal ñu seetaan leen ñun ñoo complot ànd ak Macky Sall rey ay doomu aadama commencé nañ nag seen ñaxtu xiifal te duñ fi jógee tant que amuñu li nga xamante ne moom mooy li ñu wax mooy embauchement wala kayit gu leer kayit gu leer lépp luy négociation def nañ ko lépp luy waxtaan def nañ ko képp kuy kilifa ci dëkk bi seeti nañ la lépp lu ñu yaakaar ne bu ñu ko defee jàmm dana am ku nekk dana dem ci la nga dem def nañ ko waaye nguur gi àdduwul comme nag nguur gi àdduwul ñoom jël nañ seen responsabilité ne dañoo fas yéene xiifal ba keroog lu ñu am jël ndaxit dee ci xorom si waaye dee ci ngor moo ko gën dee ci ngor moo ko gën rafetlu wuñu ko ñaanuñu ko suwetewuñu ko du lu ñu gënal ñun waaye amuñu pexe pexe bi ñu am mooy toog pour nit ñi dégguñu Sénégalais yi xam ne mbir mi jafe na mbir mi métti na bu ñu fi nekkee ci réew moo xamante ne nii nit day nekk ci liggéey imagine nga directeurs yi di indi ay nit ñoo xamante ne seen i mbokk lañ ak seen i militant ñii xam liggéey bi ñoo leen di former pour ñoom ci ginnaaw ñu wëlbatiku embauché leen ngeen yaakaar ne loolu dégg la nga liggéey ci kër ñaar fukki at ñu indi gune gu ndaw gu xonk cur xamul dara ci liggéey bi nga formé ko ñu embauché ko moom ndax ci parti bi la bokk ñu embauché ko moom parce que jabaatu directeur bi la yow mi xam liggéey bi di dee di sonn di ñafe di rey sa bopp ay ati ati at ñu bàyyi la soofantal la loolu lañ wax ne dafa ñaaw ñaawlu nañ ko te dinañ ko bokk ànd ak ñoom xeex ko te képp kuy sénégalais ñu la ci interpellé responsabilité bépp sénégalais la na nga génn ñu jàppale suñu frères yii fi nekk ndax 500 personnes Macky Sall bu leen mënut jox liggéey xawma kan lay dig liggéey di la ko jox. 500 yoo xam ne xarañ nañ seen liggéey ndax Sénégal gis ngeen ni courant bi demee gis ngeen li ci nekk gis ngeen ñafe yi ci nekk gis ngeen jéego yi ci nekk kon ñii la. ñii la ñooy relevé ñooy facturer ñooy toog ñooy xeex ñooy ñëw heure bu nekk kon nag li ñu laaj bëriwul embauchement la ñuy wax sans condition. nañ leen jël ñu liggéey seen liggéey ñu fay leen salaire ya ya ca ya ca war moo tax ñu ngi woo bépp sénégalais ñu génn ñëw ñu ànd jàppale suñu frères yi jàppale suñu sœurs yi jàppale suñu papa yi ay père de famille lañ école yi ibbi amuñu lu ñu jëndee fourniture amuñu lu ñu def leneen kon nag ñu ngi fii ci suufu pont bi pont Saint-Lazare bi fas yéene ànd ak ñoom ci seen xiifal ba keroog nguur gi di addu wala ba keroog yàlla def duñ ko namee kon donc loolu laa ci bëggoon a sànni ci ay kaddu di jox suñu mbokk waa FRAPP ñu ñëw ñoom it sànni ci kaddu en français daaw da waaw bëgg. embauchement la ñu bëgg. voilà jeex na.